asalaamaaleykum gars comme ni ma leen ko waxee léegi heure layam-layame bi dafa jeex c'est maintenant ou jamais doomu aadama opportunité du présenté wu ngay xeex ak doomu aadama mu wóor la ne ki ngay xeexal yaa ko man duma nga ko son dos est contre le mur nga koy bàyyi di dindi sa tànk ci baatam boo leen jekkoo da nga leen di yeggali dama ne sénégalais yi lay waxal c'est maintenant ou jamais opportunité bii bu ñu rawee dinañu toogaat yeneen junni at di ko xaar te du ñëwaat nañu dem génnee jimboori ci pale ba daq ko ci xaj génnee ko réew ma militaires yi bi jël euh, population armée bi jël pale bi ñu jël nguur gi ñu tëgg ay élection yu jaar yoon kii fa nekk ki nekk ci bopp réew mi tey du tëgg ay élection yu jaar yoon bu ñu toogee fii di xaar Macky sàll bu tëggee ay élection da koy luubal Farba Ngom mi ngi enregistré ay Mauritanien ak ay Gambien ak ay ak ay euh, euh, maanaam waa Guinée Bissau depuis ban mois ñoom ñu ngi fii di enregistré ay nit bàyyi leen caaxaan yi le président Ousmane Sonko tey liñ ko def billahi wallahi tallahi opportunité la pour ñun ñu jël réew mi nañu dem génnee makki Sall ci pale bi gars yi bàyyi layam-layami bii bàyyi leen tëdd ci seen kër yi mel ni ay xaru yaraan nañu génn dem génnee Macky Sall palais na ñëpp génn boot seen ay sac au jigéen ñi ngeen génn woddu takk seen sër yi ba mu dëgër xale yi ngeen génn na ñëpp génn dem déloger Macky Sall réew mënuñu ko defar te yàquñu ko ba pare bu ñu génnewul Macky Sall ci pale bi Sénégal du mas a defar bu ñu bàyyee Macky Sall ci palais bi bu tëggee ay élection da koy sàcc lu mu def ci senegal da koy luubal il a tout préparé na sàcc élection yi ba pare Macky Sall préparé na bu yàgg éliminer Ousmane Sonko ba pare yii muy def nii yëpp ay mascarade la ak ay caaxaan dafa nekk di natt détermination wu yi démb sénégalais yi gis nañu fi ngeen manee presque une, cinquantaine, des centaines de millions de personnes sont sorties et envahir le stade au parcelle Assainies Kerok Massar la même chose mais le président Ousmane Sonko il a fait son live ñun fait gis nañu li xew manul sax école Domam bi mu jur manu école ci ban la né lan lañuy xaar gaay nañu déloger palais heure révolution moo sonné coup d'état constitutionnel moo war a am tey moo am ak Macky Sall mais tey coup d'état populaire moo war a am Macky Sall warul fanaan palais le 16 warul fekk nee naa leen billahi wallahi 72 heures de combat Macky Sall mënu ko maintenir Macky Sall amul police bi amul gendarmerie bi armée national na ñëw jël réew mi nañu dem ñu déloger Macky Sall Arme bi laay waxal buñu déloger délogé Macky Sall ba général ba nga xamné ne la len Samba Boréem bi bu mu laal palais de toute façon coup d'état bu sa am ci bi généraux yi duñu palais voilà on appelle nos jeunes colonels nos jeunes capitaines les généraux qui ne sont pas corrompus ñu jël réew mi nañu jël réew mi nañu dem déloger palais gaay nañu génn ñu dem déloger Macky Sall palais les patriotes mot d'ordre bi mooy déloger Macky Sall amul beneen ma ne mënuñoo toog ci ab réew ñuy seetaan Macky Sall mu continuer li muy def bu ñu toogee xaar Macky Sall amul lu mu deful ba pare toj na us oto Ousmane Sonko génnee na ko ci baare na barricade na buntu këru Ousmane sonk guddi yi ñu toll armée sénégalaise rek moo ñu mën a ci lii on doit en finir avec Macky Sall bu ñu nee dañuy xaar ay élections njuumte bu rëy njuumte bu mel noonu am ci Sénégal parce que Macky Sall du bàyyi ñu tëgg ay élections yu jaar yoon. dama nañu dem ñu déloger Macky Sall ci palais ba loolu wax allons déloger Macky Sall du palais de la République point loolu rek mooy wax ji amul négociation amul benen wax. ndax lépp luñ fi waajal lépp luñ fi lijjanti Macky Sall muy sàcc ay élection rek moo fi am gars yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu